góor ak yàlla gu tedd googu ma waxoon la ay doomam waxoon la xam-xamam ci wàllu yër wax la xam-xamam ci wàllu yég waxoon la wilaayaam ak wiraasaam moom laa lay wax tamit ay karaamaam yu màgg yi ko yàlla may di maam xalifa ngees xulubub yàlla bu màgg ba boo demee ca buxiyatul mustafi dafay wax ne karama mbir la moo xam ne dafa xar baax mooy lu baax xamutoon baax xamul ganaar ak ñeenti tànk baax xamul ko yoruy laaf di naaw baax xamul garab goo njëmbat léegi léegi mu sax léegi màgg léegi meññ léegi lépp lu baax xamul rek loolu lañu tuddee loolu la ñu tuddee maanaam xar baax loolu lañ tuddee xar baax su ko defee nag moom xar baax moomu moo jur ñetti ñett doom la am am na doom ju ñuy tuddee mu'jizatu kooku ab yonantu la ko yàlla jagleel am na geneen doom ju tuddee karaamatu kooku wëlli yàlla la ko yàlla jagleel am na beneen doom mooy caatam moo tudd istidraaj kooku ab woyu rek la ko yàlla jagleel moom la alquran ni sa nastadrijuhum min haythu laa ya'lamuuna karaama moomu nag di loo xam ne alkaraamatu amrun xaariqun lil aadati loo xam ne gayru mustanadin li asbaabin wala maqrunin bi taxaddi yujriha allahu bi qudratihi ala yaddi baadi awliyaihi wa xaasatihi tarqiyatan li himmatihi wa idhaaran li tarbiyatihi aw taniisan lahu min waxshatihi aw icaanatan lahu ala waqtihi aw ziyaadatan lahu fi maarifatihi aw imtinaahan aw imtihaanan lahu fi xaalatihi ah moom karaamatu moomu di mbir moo xam ne xaru baax la borom buxyatul mustafid nee na lu ñuy wéer ci ay sabab bu nangam xamee ah, karaama am déedéet duhut lu ñu lënkale ak ak ak bàkku maa def karaama bi def leen amut. ab mu'jiza nag ab yonentu mën na koo def na def leen yonentu bi yàlla wàkkee ci moom alquran ñu koy ñu koy saboote dafa ne leen ah faatoo bi xasri suwari mislihi muftarayaat mënuñ ko ba digg mu ne fal yaatoo bi hadisin mënuñ ko faatoo bi suratin mi misli mënuñ ko lépp mënuñ ko dara mu ne kon nag ñëw leen ngeen jébbalu qul in ijtamaat al insu wal jinnu ala an yaatu bi misli hada al quran laa yaatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin kon moom du lu ñuy bàkku du lu ñuy samp ndënd du lu ñuy lëkkale ak sabab du lu ñuy toog di ko xaarandiku yàlla koy dawal ci loxol ab ab jublu ca ngir yéegi ay xitteem jublu ca ngir feeñal martabaam jublu ca tamit ngir wéttalikoo ko ci ak wéetam jublu ca ngir dimbalee ko maanaam ci ñooñ waxtoom dimbale ko ngir dolli ak xamam dimbale ko ngir exeme ko ci ay mbiram sarta ba nag mooy dafay feeñ ci loxol kuñ màndargaal ak mbaax julli ya mat na xoor ya mat na ragal yàlla ga mat na jëfe sunna ga mat na yàlla teralee ko lu ñuy tuddee karaamatu moom karaamatu nag lu sax la ci alquran sax ci sunna boo demee ci ibnu xajar dafay wax de sax na ak tàbbeem ci nasul kitaab wa sunna muy junji asxaabul kahfi xam nga ne ay nit ñu sax ñetti téeméeri at ci benn place dekkiwaat gannaaw bañ nelawee nañ meloon ni mel ko xam nga ne loola karaam mënu koo paase ba alquran ne wala bisu fii kahfihim salaasa miati sinin wasdaadoo tisaan ci boo jëlee xa maanaam ca xamariya ba kii boo jëlee ca samsiya ba xam nga ne loola karaam mënu koo paase ab xisa xadir ci Muusa moom ci boppam ànd ak moom ci gaal ga mu xar ko rey xale jubbanti miir ba nga jàng ko suratul kahfi karaama mënu koo paase ki ko def wëllu yàlla muy xadir waaye tamit yonentu yàlla euh, Zakariya lam fekk ak sayyidatuna Maryama mu koy def saa yu ñëwee fekk ci moom meññant boo xam ne noor lay am ci jamonoy nawet wala nawet meññant boo xam ne nawet lay am ci jamonoy noor kullama daxala alayha almihraaba wajada indaha risqan karaama mënu ko paase ak fi mu amee doom dàtt ga mu ne ko gësëm ko léegi dana maanaam meññeent mu ñor léegi ci tàndarma nga mën koo lekk te ëkk gu waaw la woon ci wahuzi ilayka bi gis naxlati tasaaqat alayka rutaban janiyan loola karaama mënu ko paase kon aayaat yu mel nii mooy tegtale karaama tabaarakallaahu ci alquraan bokk ca aayaat ya tamit yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu in tattaqullaa yaj'al lakum furqaanan su ngeen ragalee yàlla yàlla dafa leen karaama kon boo fi nekkee amoo ay karaama yoo mën a feeñal ci dara fay tekki ne ragaloo yàlla rek ci sunna nag ñett ña nga xam ne dañoo tukke woon ba dugg ci mennam xuntu xuntu ma tëju ci seen kaw kenn ku ci nekk def tawassul ci jëf ju baax joo gën a yaakaar bañ ko defee yàlla xet li leen loolu boo demee ci riyaadu saalihin mooy premier hadis ba loola karaama mënu koo paase. ba tey tamit li yonent bi wax ne xeet wu nekk amoon na muhaddisuun xadd kaana fii man kaana xablu ko al umam naasun muhaddisuun min gayri an min gayri an yakunu ambiyaa fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu omar yonent bi ne ña leen jiitu xam na ca ñoo xam ne mayoon nañ leen ñiy wax lu ñëwagut te bu ñëwee dëppoo nañ ko doon waxee su fekkee sama xeet wi am nañu ko ci am xomar ci la bokk moo tax xomar daana wax lu yéeme lu ñëwagut moo taxaw di xutba tabaarakallaahu moom sayduna omar ca madinatul munawara ca min baro yonantu ba di wax ne yaa saariyatu jabal yow saariya xéegal ci kaw doj wi fekk dafa bàyyi woon ak fogoru xomar fam ko waxee saariyatu dégg ko te fekk ma nga ca nahawit xam nga loola sori na kàddu goo àddu fii ke nekk Amérique dégg ko te du téléphone karaama mënu koo paase. waaye la ne woon karaama démb lépp tubaab yi fooyee nañ ko tey boo ne tey ku xañee fii ci senegal dem reeree ji Màkka tubaab yaa ngi koy def ci avion yi ku toog fii di jàkkoo ku nekk Màkka léeg-léeg ngeen gisante tubaab yaa ngi koy def. moo tax Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu ne keroog ba avion bàyyeekoo France xenu marchandise maag nit ñi ba ne cëpp fii ci ndakaaru nda karaama jeex ku ko xamante boo xeboo denc ko noonu la ko daan waxee su ko defee tamit Aboubacar borom karaama la woon daana toog mu ne jëtu bintu Saydin la ko yonent bi séexale woon nag mu ne gis naa soxnaam si lim ëmbu maanaam lim ëmb euh, Xaarijatu mi doomam ji jigéen la maa ko gis booba maanaam mi ngi ci biir ëmb bi te booba médecine avancé gut kon nag moo gisatu la yàlla jagleel yonantu yi lu mel ni Muusaa ak xet wa Suleymaan ak xorondong ga yonantu beeg balaaka bu foor bii ci alquran ci faatoo bi xasri suwarin mislihi muftarayaat faatoo bi suratin mislihi fal yaatoo bi hadisin mislihi loola kon mooy moo gisa buñ ne nag karaamatu nag moom moom la yàlla jagleel ab waliyu istidraaj yàlla jaleen ko ab woyu moo gën a bari nag maam xalifa nag yàlla da koo defaloon karaama bi ci gën a xéemu karaamaay maana yi laa lay njëkk a tudd ci yi mooy jub kocc ci jamono joo xam ne dëng dafa yomb jamono joo xam ne dëng dafa yomb mu jub kocc jël perkaal bu weex tàll xuus moom ci talib àdduna bu ñuul bii taqul taqalewut ba jub gi yàlla waxoon yonantu bi ne ko fastaqim kama umirta ab jug gi seexu tiyaan waxoon ka ko ko doon ñaan loo ne ku koy sàkku ki ji jamono mooy istiqaamatu yaa ngi mel ni kuy bëgg ci asamaan te amoo seel asamaan xëg ca am seel sax jafe na di al istiqaamatu allati wasafaha Cheikh na Tijaani Asharif bi annaha fi samaanihi bi nisbati liman yatlubuha kaman yuridu an yasada ila sama bi xayri sulamin maam Khalifa nag def na maanaam istiqaama yàlla defal na ko ko gu yéeme jub koj jël dàlli dàllam yu weex tal sol yére yu weex tàll di xuus ci talib àdduna bu tilim bi ba xëy traversé ko dagg ko taqut taqalewut kon waqad tabaqa xalifatul haaji muhammad hadihi al istiqaama as manaal fi xayaatihi fa kaanati dunya tiinatan muballalatan qaadaha haji muhammad bi niaalin bayda wa bi malabisa bayda duuna an yataarada lil wasaq faqad kaana fi lxaqiqati madrab almasal fi listiqaamati noonu timit la nekkee lam nekkee woon sadduwaayu léeb ci njub ni la nekkee sadduwaayu léeb ci dëddu àdduna dëddu àdduna assuhdu fi zamanil mughrayaat wallaahi xalifatul xaaji Muhammad peeg na mbooleem meloy dëddu yi dëddu na mbooleem yuñ tere yi doo ko ca dégg doo ko ca gis du wax du jëf du pas-pas dëddu na mbooleem yuñ sibi dëddu na mbooleem yu lënt yi dëddu na mbooleem taaru àdduna dëddu na mbooleem bànneex yi dëddu na mbooleem yu xiirtal ñu yàqal ñu baree bëri ci sëriñ yi wallahi ku mel ni moom doo ko wutal melo ci loola wala taraa tara lahu mathilan fi dalika walaw xarasta moo tax daana toog ci kaw suuf nekk ci ron mbaaram gattax ndeysaanam ne ñey raj-raj loo amul bëkk néeg buñ tegee añ bi moom ñëpp ay bokk ak taalibe ya mooy xëy jël dorsu xamul yalwaani xamul dara bool ba xat ba muy dugal loxoom dënn ba du mën a dugg boo amaan lu luñ ko jox soxna yi léeg-léeg ñu yërëm ko bëgg koo yàkkal moom kenn mu ne bu ko fi kenn defati ñii dañoo bàyyi seen kër yaakaar ñu kon lu fi xam ñu nag ñoo ma koy bokk. ña gan ñëw na nuyu na ko balaa ubbi boolam bi dana seet fu gan nga nekk ba mu ñëw toog añandoor ak moom waaye fekk gan nga ñëwul kenn du lekk léegi-léeg am ñu fàtte bañ ubbi bool bi commencé lekk ñu ne ah gan sàngam mu ne tëgaat leen bool bi ñu dem seeti ko kenn du mam xalifa nga tëddu àdduna benn waay mos naa ñëw di ko laaj fekk ñu ngi koy wat mu ne Haji Mouhamed Khalifa laay laaj mu ne ko waxal sa soxla man mii la mu ne ko boroom téere yi taalif yu xéemu yi laax mu ne ko man la kooku gëmu ko kon moom ku dëddu woon àdduna la ci colaay dëddu àdduna ci dëkkin dëddu àdduna ci lekkin dëddu àdduna ci toogin dëddu àdduna ci ci ci doxalin dëddu àdduna ci doxin dëddu àdduna ci jëfam ci jëf jëflanteem ci pas-pasam dëddu àdduna yëpp bi ci ëpp doole mooy dëddu na àdduna xol dëddu àdduna xol nag la ko yàlla defal da ko defal dëddu àdduna ak jëmm ak comportement moom daal wabil jumlati fa innahu qad zahida an kulli ma si wallahi wa yafalu zalika duna ma takallufin li ana takallufi zuhdi laysa bi zuhdin ah di di jéem dëddu dëddulu du dëddu waaye moom du ton kuy jéem a dëddu dëddulu waaye yàlla da koo mooñaale ak dëddu bokkutoo nag ñi sol faxa yu yu dul jeex a teeg bokku ci woon de wallahi ku ku ci lépp lépp ci lim daal sol perkaal waaye tamit karamaam ya bokk na ca jeex tàkk ci yàlla jeex tàkk ci sopp sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa kon aaya ji yàlla waxoon ne qul in kuntum tuhibbuna laa fa fattabi'uni yuhbibkumullah xalifa mooy ki ko pratiqué dund na ci géej ak cofeel gëlëm ca ay duusam nga xam ne cuub ak yàlla la cofeelam sibghatallah wa man ahsanu minallaahi sibgha loola ca la bokkoon boo tax moo tax doo gis kenn ku mel ni moom ci dëddu ci ci maanaam cofeel ci moom nekkoon na cofeelam gile fa juddoo xaale ba loola màndargaxu ci moom mu màndargal ko ci ay xasida yu dul jeex ah cofeel daal daana wax ne moom laay dundee ku mel ni man tamit li koy dund du wut ceeb du wut cere mais cofeel la kaanat mahabbatuhu xuutal jusuumi lana wa nuuruhu xuutul arwaahi li am saali mu ne sama cofeel ci yonantu bi mooy liy dundal sama jëmm ji waaye tamit ah, leer ak bi mooy cofeel giy dundal sama roox yi ak ku mel ni man kon moom tabaarakallaahu wax na ko hunaaka afna anil akwaani qaatibatan xatta anil nafsi wal idraaki bil jasadi dafa jeex takk nekk ci àdduna bi te nekkut ci xatta bakkanam bi sax yëgatut ko xamatul benn yëg-yëg ci jëmmam léppam cofeel la cofeelam ak jeexam bokk na ci bu daan dundal gàmmu ndeysaanam da daan toog ba ci kanam mu ne ah ki ma sopp kaay leen ma wan leen nam daan doxee ne bërët nit ña daalu daana dem ba ci kanam mu ne fay leen sondeel yeeg làmp yi boroom ki may gàmmal di Seydunaa Muhammad mu ngi ñëw ñu toog gis di tànt ba leer nañ te kenn du taal benn sondeel loolu may la de su ko defee tamit nag lam gaa ca la daan wax ne ki ma sopp sama tur ak turam dañoo dëppoo tawaatuul ismu wasmul walidayni bihi su ko defee li zimmatun wa huwa awfal xalq bi zimmami mu ne nag kama sopp tamit wahab lana karaman zaadan yuballigu nii diyaara hibbika qabla shaybi wal harami xatta uni xabi man kaanat mahabbatuhu qabla nfitaami wa qabla darki lil xulumi su ko defee kon nag cofeelam moo ci man ñëpp ci yonantu bi cofeelam ci Seexu Tijaan daana wax ne fa qalbi summa daati summa ruuxi widaadun fii widaadin fii widaadi saqiimun laa yamuutu walaa yufiiqu taxammala qalbuhu maa laa yutiiqu taxammala min hawal xatmi yi daa an dawaahu maa yabiinu lahu tariqu wa fil jafnayni minhu wal xawaayaa tanaasaxatil gamaa'imu wal xariiqu kon bokk na ci karaamaam yi gën a yéeme mooy cofeel gu jéggi dayoo ci yonantu bi cofeel gu jéggi dayoo ci Cheikh na Tijaani ba daan wax ne mahabbatu sayqi fii fuaadiya tarsaqu fa sayqiya am amdaadi kansun wa barsaqu wa kullu maqaamin lil wilaayati saabiqun fa sayqi a'laa minhu qadran wa asbaqu kon dem na ba ne u amilu atfan min ka yudni makaanati wa in shatta min faasa saniyati kawlaxu allahu akbar cey xalifa cofeel ga lay wax na yaa saakin alqalbi inna alqalba muttarimun fal ujbu min saakinin fi xaali muttaribi dégg nga maa bayna xarqin wa xarqin fi jawaanihihi fal aynu fi lujajin wal qalbu fi lahabi loo ca man bokk na ci timit karaamaam ya dundal sunna moom daal sunna ñaari dal la woon yu mosta summi ci waxam ci jëfam ci niroowam léppam da doon pratiquer sunna ci këram ak léppam ay fasam fa ko tuddee fas yonantu bi ay soxnaam yi soxnaa yonantu bi ay doomam yi doomi yonantu bi yi soxnaa yonantu bi li ne lu sunna bëgg rek boo dem fekk ci maam Khalifa Niass lu tax mu ne maa mosta teqalikoog borom sunna di yonantu bi kaana maa yi badrul kamaali xaytu yamilu qalbi yamilu ku mel noona kay foog nga bëgg sunna dundam lépp fa mel ni dafa nekkoon avocat dafa bi daan défendre sunna ci boppam ci wax ci jëf ci pas-pas daan roy yonantu bi ni muy doxee di ko roy ni muy naanee di ko roy ni muy solo di ko roy ni muy toogee lépp rek lu daan yonantu bi def rek boo ñëw ci maam Khalifa bu ko xool gis ko ca. kon nag gannaaw karaama yooyu xam ne moo ëpp doole laa indi na karaamaay xisiye yi gannaaw karaamaay maanawiye yi bokk na ci karaamaay xisiye yi nag moom maam Khalifa Niass ba mu demee Faas dafa wàcc ci jàkka. di julli ànd ak soxnaam maam fàttul ñang ne ko dama la yóbbu faas nga jàngee na ñuy toggee kus-kusu marocain yi su ma amatee gani waa faas yi nga mën leen koo toggal lii rek a tax mu yóbbu leen xam ñum yóbbu xaale ne leen damaa bëgg ngeen jàng wasi faw faas wi niñ koy daajee ak niñ koy yëkkatee ne ko sama baay defee woon bu ñëwee ngeen di ko def ba mu ñëwee wàcc ci benn jàkka ah Seexu Tijaan xebal na sukkay riju ne ko xalifa ña sama laan wax de gën maa sopp ci nit ñuul ñi moo ñëw di ma siyaara si keroog ba maam xalifa jële bagaasam yi génn këram wax na ko ko ba mu ñëwee Ndakaaru wax na koko ko ba mu jëlee bato wax na ko ko ba ni mu wàcc Seexu Tijaan ne ko bagaasam yaa ngi nii nang ma huutu ci ganaleel ma ko fekk su koy ruju xaadi ca Marrakech waaye dafa mujj ñaan permission ñëw faas toog fa di tetu di tetu maam xalifa Ñas muy roñ bagaasam sami rek di yóbbu këram kalifa ne ko ah yaa ngi roñ samay bagaas te waxoo ma yaay kan mu léebu ko ne ko tasmaa ay muaydi xayru min an taraahu mu ne ko ah kon yaay sukkayru ju mi doon bindanteeg man leetar mu ne ko waaw ba nga dogoo la ma ko Seexu Tijaan wax nga départ mu wax ma ko foo toll wax na ma ko moom ma jiital ba ne ma bagaas yaa ngi nii roñ naa ñaari yoon di ñetteel door laa door laa gis ak yow. eh bégal te nga bëgg seex te nga te nga xam ne sa yoon wi daal la nangu na ko seexu tijaan sopp na la bëgg na la keroog sukkandiku yu lu ne wax na ko moom xalifa ba mu fanaanee bër set mu ne ko gis naa sa baay mu ngi dóor sa mbagg yi ne la xalifa bul tiit bul jàq wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bokk na ci karaamaam yi keroog ba ñuy jullee baayam moo taxaw. ne xool nit ña rek ne yow da ngay tux cigarette génnal yow da ngay tux génnal yow da ngay tux par benn ba ñëpp génn mu ne sama bàyyi fa ma bàttali woon bu ma koy jullee kuy tux cigarette bu mu bokk ci ñeenti sàpp yu njëkk yi ñeenti sàpp yëpp la fay xool rek ne la yow yow génnal xëy yow génnal rek ñëpp kenn ku ne xam sa bopp te kum joxoñ rek nga xam ne yow da ngay tux te kenn waxul ko ko kon dugg na ci wa allamnaahu min ladunaa ilman ku bañoon cigarette la baayam wayloo woon na ko ci ab xasida mu wax ko pour femmi ñu xamul ñi tey wax rek xalifa ne alhamdulilahi man bil xamri qad xasama ala al ibaadi wa fi qur'anihi xakama wa maa yudaahihi min misli xabisati min karihati natni mimma nassahu al ulama ahlu shariati wa tahqiqi rutbatuhum laa man yaqulu bima yahwaahu muttahama demeet ba xasida ba jeex bàyyam bég ca lool karaamaam ya bokk na ca benn góor gu ñuy tuddee xaliyu maram mu ngi dëkk tay ba Mbayeen doon jàngee jaamal léegi nag colonialiste si jàpp ko yóbbu ko ca seen ba ca mbir kilaan pour bëggoon ko yóbbu ca guerre ba baayam ñëw ci maam Khalifa wax ko ko aa ah, maam Khalifa ne ko moom du dem demal nga toog noor bi foofu la koy foofu la koy passé ak yow ca Tayba Mbayeen ñu toog rek tabaarakallaahu baayam daal ba ko xalifa waxee loolu mu dem mu ne ko sa doom ji sa yaqdil xarifa indaka bi idnillaahi fa rajaca alwalidu ila masqati rasihi mutaakidan bi ma qaala cheikh xalifatu haji muhammad ñi dem a dem a dem ba la hëpp ca noor ba doom jaa ko def ca tubaab ya ca mbir ki laan ca ca ba aa ah, bay noor bi di bëgg a jeex rek xaa ah, lañ bàyyi doom ja mu ñëw fekk baayam ca ba Mbayaan moom daal bàyyi fa koo seen rek daanu ba billaahi xalifatul Muhammad kenn du moom ba may wax lii ak léegi ay weer yu weer yu weer la fa doxoon fekk fa xëy rek tubaab yi xëy bàyyi ko. ba muy ñib su fekk baayam di nelaw mu fanaan ba bër set ci kenn ci yenn ca néeg ya baayam yëgu ko mu xëy rek tabaarakalaaw fekk bis ba nag ca la yàlla gi taw bis taw bu bari ba miir ya daanu sàkkar ya mu xëy moom xale ba defaraat sekkel yi rek bàyyam seen ko rek daanu yéemu ci li ko maam xalifa nges waxoon ca wax jooja nga xam ne dëppoo na tey ak loola wala maa xamal abu min nawmihi saadafal ibna almadkur yuslihu judraan almansil fa saaha xatta camaa alay ahlul qaryati fa axbarahum bil qissati rek mu wax leen li ko maam xalifa waxoon ak tey ni ko yàlla defee ci euh, karaamaam ya bokk na ca fii la waa fuuta yi di ko tawat seen picc ya luñ bay picc ya yàq ko xalifa wax ak kilifa ak picc yi taxaw fii joxoñ fuuta rek picc ya daw aa ah, ma ni ku toog Kaolack dàq picc ya ca fuuta billaahi bu ko waa Kaolack xamoon mu dàq yooyu kenn mënu ko dara moo tax yooyaa ñu bëgg a rey dara yóbbuwuñu ko réere maam xalifa rek ku ko ci xam-xam gu wér boo fanaanoon Kaolack tamit yoodu la matt fee yooyaa la matt rek réere nga xalifa laaj ko tabaarakallaahu uh, maam uh, yaayi baalaaji Ibrahima tabaarakallaahu di umul Habib. aa ah, moom buy te dafay wax ne sàngoonaa xalifa dund na ba génn àdduna yoo màttut ko kon ca ñaanam ga ca karamaya daana fekk ku ñàkk mu ñaanal ko mu nekk milliardaire laaj ko Adama Seen ba ko maam xalifa ne ku ma jox karta ku ma jox maanaam fukki junne ma jox la maqaam ab Suleymaan yetu ba dee Adama seen ñëw jox ko ko mu ne ko def naa compte xaalis muy sa mu jëg dund mu jëg dundam lépp Kawlax la ko war moo ko moom ca placé nekk ca marché ba bu weer dee mu ñëw faye ko compte dem ñibbi xaat ba weer deewaat mu ñëwaat xalifa ne ko compte xaalis mooy nekk sa liggéey. xam na kuñ tëjoon kaso mbokkam ya jaaxle ñëw ci xalifa wax ko ko xalifa def xasida ne yónnee leen ko ngeen jàng ko ci kanamam dañ ko bàyyi mu ne wasdud ilayka ala rahmaani xaaliqanaa fii kulli hawlin min al ahwaali untufira ba ko waaj a liiree ñu wax ko ci kanama ba cëral si ñu génne ko kasa ba xalifa nag doyoon na ko karaama rek xale bu toll di nàmp di feeñal ca feelam ci yonantu yàlla muhammad di yàbbi ween wa di jaayu ànd ak kuy tudd yàlla kuy tudd yonantu bi feek kooka eh, delloo xatul ween wa du ko wax te ma laaj ko nettali loolu doy na karaama xéeg gi mu xéeg kaw doj wa benn bis ba nasaraan yi ñëwee tabaarakallaahu gaa yi di ko làqu si xalifa yi ca yore yore yore xetam di joxoñ nasaraan yee daanu par benn daanu par benn daanu par benn ba mujj ña si des daw ana jamaatan min an-nasaara ataw yabxasuuna an makaani wujudil waalidihi Cheikh Hadji Abdoulaye Niass fa saxida Hadji Mouhamad Khalifa aljabala fa badaa yaqra'u maa halaa lahu an fa kaana kullamaa nataqa bi lafsin saqata ahada nasaara noonu la defee saqata ahadu nasaara illa an baqiya minhum xadadun qalil fa haribu min al makaani taarikiina xalfahum ganimatan fa jamaaha annaas wa ataw xaaji muhammad su ko defee fa jamaaha annaasu wa ataw xaaji muhammad wastasanuuhu bi binaa'i daarihi fa manaahum bi dalika dañoo jox benn bi sax benn armée ñëw di seet fi ñu denc Alaaji Abdoulaye Niass bëgg koo dindi xalifa taxaw ca kaw benn doj rek commencé taxaw di leen di leen joxoñ ñii daanu di leen joxoñ ñii daanu ba mu des ñu ci daw bàyyi fa seen xalal ya gaa yi dajale koon dañ koy kii mu ne xalifa ne déedéet dañ leen ko delloo bëgguma ci ñoom dara kon karaamaay maam xalifa foofu la karaamaay yam na ca benn bis mos naa julli benn waay dem marché ba jënd fa jën teg ko ci gannaawam teg ko ci gannaaw maam xalifa nga julli ca gannaawam dem togg ko bëgg koo reeree ñorut mu xëy bëgg a ndékki togg ba togg ñorut mu ñëw ci xalifa ne ko sama jën yi xanaa dafa am jën yu du ñor lan la mu wax ko fi mu jaar mu ne ko yaa dof Moodu Mbay man xalifa nu ma féetee gannaaw yaramam xaraanu safara kon ku jën nekk sa gannaaw manta lakk nit ña nekk sa gannaaw bu ñu la gëmee xam pas-pas ci yow duñ lakk ku nara lakk bax la kenn mënu ci dara fekk bëgg lakk gaa tax nga ba ko nga foon dañ laa ba fekk ba ko moo la ba ay karaamaam demeet lim karaamaay maam xalifa yi ku koy lim sax léegi yow sa bopp ñu limal la ay karaama ngir bëri ga ku nee ay tukki la tukkeem ya bokkoon na ca yii da ko génn réew mi lu mel ni xaji wenn yoon dem siyaare ji Seex na Tijaani ñaari yoon yoonu xajam gala ànd ak baayam siyaare ji Seex na Tijaani dem Màkka yoonu ñaareel wa nag moom moo dem ànd ak ñam tànn moom laa la wax fa ko ju tertoog la ca aju loolu yàlla defal na ko ko tukki na ci yenn dëkk dëkkaan yi dukki na dem njombaatoo ku mel ni seeti sëñ daara Aliou jóob seeti ku mel ni alaaji maanaam Ali Yaasin naka noonu tamit tukki na dem Kucey tukki na dem Fuuta wan na fa karaama yu rëy fa la taxaw yaa ñi ñaan loo ko ca mbënd ma mu ne fii ma toog samp sama xet wi bu déwénee mbënd mi dana fi yegg si xam ñu ca lam-lamee na ko xalifa waxee woon dara dañu ca kon moom ku néewoon ay tukki la tabaarakallaahu naka noonu tamit yàlla defaloon na ko tukkee moo xamee ne nii fu mu dem xaajo faju ku mu sa xaajo faju loola yàlla defaloon na ko ko moom xalifatul xaji Muhammad su ko defee tamit nag ku bëggoon yonantu bi la bëgg seexu tijaan fu mu toll ma ngi koy tagg yaa hadratal asraari wal anwaari xustil faqaara bisaa'iril aqtaari falakil hanaa bi ma xawayta min al ulaa yaa hadratal asraari wal anwaari ba mu demee ca faas loolu la tagg seexu tijaan kon dem na faas ñaari yoon tabaarakallaahu yoon ba ma ngay tagg naan salaamun alal qabri l muniifi l mubaaraki salaamu xalifin li dumuuci shawaabiki asheyqi haada qaadimun jaaba naxwakum gawaariba amwaajin wa fayhat dakaadiki tajuubu bihi baran wa baxran safaa'inun tubaari xubuuba riixi summal xawaariki tubaari xubuuba riixi summul xawaariki asheyqi inni xaa'irun mutaraddidun walaw laaka lam aarif wujuhal masaliki loolu ngi déggul ara sax xam nañ ne neex na kon dem na fi njombaal to tukki na fi dem tay ba mbayeen keroog ba góor gu tedd ga génnee àdduna mu ñëw di ko jullee si tabaraka tabaarakallaahu moo ñëw jullee ko di bàyyi sëñ daara Cheikh Modou maam Khalifa nga sa ñëw jullee ko tafsir moon mbay tukki na tamit tabaarakallaahu kër Aliou Diop tukki na jëm sangat tukki na fi tamit tabaarakallaahu dem ku cey ay yoon yooni yoon yàgg ne na tagg ci xasidaam yu nga xam ne firil naalak ko ci yàllaahu yaa xayu yaa qayumu xaaliqanaa fal tuuti ahla ku ceyin maanaam aw fara niami warsuquhum barakatin fi basatinihim waxutaha fi ahalihim wa fi lxasami demeet xasida yooyu yëpp firiloon naa la ko dem na fi Fuuta dem na fi Siñi dem na fi bawal yépp di tasaare diine dem na fi caameen waalo dem na fi caameen Tataguine góor gi Aliou Thiam yii bokk na ci ay tukki yoo xam ne maam Khalifa Niass def nag ko di dëgëral ay relation di tasaare ay mbóoti ki ay secret di dimbale góor yi yàlla yi dafa daan wax ne man dañ ma sàmmaloo ab sàmm du sori lañ koy sàmmaloo ku xamoon ay relation la ak nit ñu baax ñi kër Seexu Tijaan na ci jiitu dafa amoon relation Seydi Mahmoud mi doon xalifaam bi ba mu lijaasal ko amoon relation Seydi Mouhamadul Kabir ba mu ko imam defe ko muraasala ca lijaasam samba Daarul Bayda Seydil Amaanaam Xarab Muhyiddin noona demeet kër Sëriñ Tuuba amoon na relation Xaadimu Rasul soppeem la woon ñi bokk bëggante soppante. Ah, ba nga xam ne nag keroog ba maam Mor Anta Sali génnee àdduna maam Khalifa la baayam xebal mu dem jaale ji xaadimu rasul Cheikh Ahmad Bamba ñoom ñaar bëggante soppante ba xaadimu rasul ba ko maam Khalifa yónnee waaye ci aska salaamin ka taami suhdi bi raaxi yéenoo bu an wisaala raaxi bi raaxi Serigne Touba tamit yónnee ko ay way di ko tagg maam Khalifa Niass ilal xaaji najlil xaaji في العلم والفقر وذي المجد والإحسان والنظم والشعر محمد المعروف بالجود والندى وما مثله الفديان في النظم والنثر سلام كعرف المسك نفحته علت كما قد على طفلا على كل ذي قدر noonu la jëlee relation ba xaadimu rasul Muhammadinil Moustapha ak Balaaji mu ndaw Serigne Fallou Mbacke ak Balaaji mu ndaw Serigne Salihu Mbacke ak Serigne Abdoulahat ak Balaaji Babacar demeet relation baa nga ci ba ci Sëriñ Bara ak Balaaj Ibrahima ñëw na fi seet si ko kon relation ba tey tey la gën a dëgër ci kër gi ci seen ak bëggante seen ak soppante mu nekk loo xam ne nii lu yàgg a yàgg la. mun nga koy fekkee tamit alaaqaam ak usratu malikiya moom dem na fi ndar benn taalibe réer maam alaaji ne ko heggal ci sa baay alaaji Malik nga nuyul ma ko nga siyaare ko mag ñëpp benn lañu woon. ba mu demee ne ko bàyyi alaaji Abdoulaye bàyyi alaaji mu ne ko doxoo ma sa bàyyi sa mag laa ndax alaaji Abdoulaye man mi sax bàyyi laa koy xooxee ndax ba sama bàyyi Ousmane xaritam la woon gis na ko te man gisuma ko loola sëñ Abdoulaye Asis yàgg na koo nettali ñi bokk bëggante soppante ba muy dem maam alaaji Malick ne ko lu la tax a jug mu ne ko dafa am courrier sama bàyyi xoo ma ne mën naa ñëw seet si ko mu ne ko wax ma ni ma mel am naa fi ay mag ñu ñu miin ndar ba ko waxee rek teguñ ca subaak ngoon rek tabaarakallaahu ñu ñëw feeñal ko maam xalifa bég lool ci lii nga xam ne moom la ko baayam yónni woon tam matal ko ci la def xasida ba ne ko nil nal marama wa nil naa qaasiyal xaaji min yum ni nayli liqaa'i sayidil xaaji asayqu maaliku baxrunil xidamu wa man bihi tadan naasu fawjan baada afwaaji imaamuna wa xabibu sheyqi walidina wa xayri man lam yaqib in yarjuhu raaji loolu la taggee maam alaaji Malick ba muy dem bay ñibbi maam alaaji Malick ne ko gan gu ma mos a xam buntu kër mbaa buntu néeg yow maa lay gunge ba ca gaar ba ñu dem ba ca gaar ba maam xalifay dugg maam alaaji Malick xool ko ne ko qad duribal xadiidu lil awraaqi maam xalifa ne ko bika wa ma bika min al ñi bokk benn woyti mel ni na xaaris defoon ak imru a ahaari tara bu ray xan xëbba mu ne ko kanaari maju tastairu saara tastairu stiaara demeet loolu lañ def ñoom ñaar soppante ga ndeysaanam ba maam xalifa defal na ko xasida sopp ko doon ci baayam alaaji abdoulaye ñasan ni meloon na maam alaaji malik ci ata habibi ji nga xam ne moom la ko alaaji mal defal ata habibi li rabbil hamdu min faasi wa jaana id atana tiibu an faasi ata wa yunsiruna miskan bi mawtinina mubashiran kulla anwaain wa ajnaasi bam pare maam xalifa maam alaaji ablaay si ne ko li ma alaaji maali wax yépp ci moom la nekk fa baax rek di ma tagg dellool ma ko tagg waay maam xalifa ne ko yooti wa yamdaxu man qad jaa min faasi alhaaju maaliku mun dinnaasi min baasi min waxdihi min ilmihi qad asaala aljahla min naasi wa min mawaahibihi naylul ganaa'i fala gaysun bi ajwada min xibbi wa inaasi almuqtafi sunat almuxtaari shaafiina laylan naharan bila maylin li waswaasi xammarta umirta maa qad kaana mundarisan tariqat alqadmi daa sawbin bila baasi lii la alaajim alaajab laa ñes maam alaaji maal def ko ci moom muy baxru basiit xaafiya ba siiniya maam Khalifa def ko tamit ci alaaji Malik tontul baayam huutu ko ca xaafiya ba siiniya baxru ba baxru basit kon mag ñi benn lañu xoon soppante soppante gaay dem sëñ Aboubacar si bu ñëwaan Kawlax day jël diwaanam ma jox ko maam Khalifa maam Khalifa jël diwaanam ba jox ko ko kenn ku nekk di liir sa diwaanam morom buy ñibbi kenn ku nekk delloo sa morom sa bos. ñoom ñaar defante woon nañ ay xasida sax maam kalifa def na xasida sëñ Babacar si sëñ Babacar si tim def nañ ci moom xasida noonu ngay demee sëriñ Abdou Aziz moog Baye Laaji bu ndaw ñoo bokkoon daara ngir bëgganteeg soppante ba mu génne àdduna ñëw na jaale si ko. demeet tabaarakallaahu noonu lay continuer cofeel ga ku ne xam na si Ahmed Ziyane si almakutoom cofeel gi mu xam ci maam kalifa cofeel gi mu xam ci Baye Laaji mu ndaw ba Baye Laaji mu ndaw way ko moom tamit mu way ko ñi wayante seen wayu siiw yooya noona nga xam ne tey ah, Baay Alaaji mu ndaw a ngi koy tagg ne farihal bi maqdami tijaani wal kullu xilfu masratin wa wal gummu wala mudbiran bi juyusihi wa sada xamaamul ayki fil afnaani فتفتقت أزهارها وتجاوبت أطيارها برواقن الألحان بالله بالاجي من واي بامباري ba Cheikh Ahmed Tidiane si tontu ko ah, ne ko maanaam salabat ka xan xuurin hunaaka xasaani fa xuurun ah, maanaam raaynaaka min bani xasaani moom tamit Cheikh Ahmed Tidiane si kéemaan la ci way loolu mooy matlax ba ngir ngir wane rek seen ak bëggante seen ak soppante noonu la maam Khalifa am relation ba kër Cheikhu Tidiane gis nga ko ma tagg. Ah, Muhammadul Kabir badat ka shamsi fil ufuqil muniri mu'attaratan nawahi bil abiri noonu la mel ca say Seydi Mahmoud inna saadata wal wilayata wa tuqaa maqrunatun bi ijaasatil Mahmoud jamco la noonu la mel ak maam Alaaji Amadou Dem ba mu defee téeréem ba diyaa un néeréy ni maam Khalifa Niass yónnee na ko ko mu taqriis ko na diyaa un néeréy ni huwa diyaa u fa xuqa bihi ala naadi nidaau wa kaana yaxiqu an yuhda ila man banaahu min alsuni lisini sanaa'i sanaa'u banaahu min alsuni lisini sanaa'u fa qaama bi waajibin anna fa amsa ilayhi saa'iran minna hanaa'u kon loolu la ko wax di ko ca tagg ngir rafetlu liggéeyam bu rëy boobu nga xam ne da caa huutu mbooleem nit ñu ñuul sukkayru ju moom xalifa ko gënal kudut moom ni mu ko soppee néew na ku mu ko soppee fi mu ko teg ci xam-xam tegul fa kenn sopp koo tax mu liggéey yëpp téere ne maam kalifa ma ki doy moo koy saraa sopp koo tax mu jël téere maam xalifa euh, dégg nga muy naf mu wasaaya seyqi def ko ca téereem ba muy rafon niqaab boo demee fekk ko ca tiyaan yu bëri am nañ ko sopp ko moo tax mu les xalimbaam di tagg maam xalifa ne akrim bihi min qawla xiyin alimin mutabaxirin fi ilmi fi sudaani waaye waaye xéemal ta nga teddal ku dëkk kawlax ka di borom xam-xam ba ki géejuhu ci xam-xam gën cee géejuhu mboolem nit ku ñuul ni amal xalifatu fi tariqati cheikhina anna wa an man wa an man qablu wa an man maanaam min ayaani qad faaqa fi ilmi shariati walxaqi qati gayrahu bilxaqi lal buhtaani mu ne xalifa kawe na ñëpp ci xam-xamam sariha kawe ñëpp ci xam-xamu xaqiqa man sukkeeru ju maa ko wax. wallahi li may wax nu neen wa ana ubajjiluhu wa askuruhu wa askuru kulla ixwaani ah, kulla ixwatihi zawil irfaani kon sukkeeru joo ko wax ma ngi koy wax di tagg maam xalifa naalal xilaafata fi tariqati xan abi yaani al imaami aarif tijaani fa saqaa ahibatahu bi taxqiqi min asir ril masuuni bi akbaril kiisaani wax ja dafa bëri lu bëree bëri la sukkayru ju moo ko jël di ko tagg maam Khalifa sa relation am ngay fekk ak bin Omar maam Khalifa nga koy tagg ne alyumnu aqbala fi athwaabihi aljudadi wa dëhru naafasa ba'da algayi fi rashadi wa adbarat turuhaatul mubtilina waqat zidat qulubu muridil shayqi bil madadi loolu moo koy wax ahlan bi taa'iri jawin jaa yaxmilu man yowma alarubati fi luqyaahu kal ahadi maa saara fi baladin illa aqaama bihi maa kaana min awadin fi dalika al baladi lii la maam xalif wax ci binu Omar sëtëb Seexu Tijaan bi nga xam ne moo fi ñëwoon kon noonu mu mel ci relation timit ñi ngay fekk borom xam-xam yépp him maam xalifa tagg ko ka ca jiitu mooy rakkam ya rakkam yëpp les nañ seen xaliba di bàkk maam xalifa ci xam-xam ci wilaaya ci mbaax jëlal tabaarakallaahu cheikh xalil mi daan wax ne duhuma cheikh xalil mais seexu lépp laa rakkam la ma ngay bàkk maam xalifa ne wilaay xalifa baax te sell ragal yàlla ba ku ko gis sax dem aljana ne busra lana bi imaami asrihi alxaaji muhammadin cheyqi haada alwaqti fi taaji taajil xilaafati fi maanan wa fi alanin bi raxmi an fi akil akil inkaari lajjaaji jaabal biraara kama jaadal bihaara ala falakil amaanati min taxriqi amwaaji dem na ba ne raauhu la yadxulna naara in ramaqu bal yadxulna jannatin xayra ixraaji duna ixraaji kon moom Cheikh Xalil mu ne mbégte ñeexal nañu ki raw ci jamonoom di Xaaji Mouhamed Khalifa mooy sëriñam waxtu wi la de mooy borom mbaxanaam wurus mi de mooy borom mbaxanaam xilaafa mi ci li feeñ ak ci lu nëbbu kuy weddi booy ba da nga torox dem safara mooy ki dagg jéer yi mooy ki dagg géej yi nekk ci ko mooy nekk ci gaal ak kóolute gu koo xam ne du lab mukk ndax borom duusee moo xeen gaal dugg maanaam géej a dugg ci biir gaal su ko defee na dem siyaara ji xutbul aarifina Cheikh na Tijaan yi ba mu ñëwee lim indi ci xam-xam indi ko ci ay secret lotta ngu njëkk ña ak ñu mujj ña waaye dama ne xalifa mii lim xam ci xam-xam xam ko ci wilaaya ak mbaax ku ko gis mu daggu ci yow nga sopp ko doo dem safara lii la ba ba maanaam tabaarakallaahu Cheikh Khalil wax ci moom. nga jël rakkam ju baax ja Cheikh al Islam Haji Ibrahim ne ku ñu tëkkale xalifa nax nañ la man kal xalifati alladi taallama minhu wa minhu qadha wa taqadduma lahu tawalifun lahu ashaaru raa'iatun walana biha iftiqaaru ah, ay najlahu lbikra bahra al ilmi wa faaqa fi sigri kulla al qawmi mu ne ku mel ni xalifa mi jàng ci sama baay làq ak jiitu ba ñëppay kursu jëm ci jiitu xalifa raw ñépp li mu taalif ci ay téere yu héemu yoo xam ne ñun ñii bokk ak moom dañ koy puukareexoo mu ne loolu kenn taalifut ko ba loolu la ko wax dem na ba ca kanam keroog ba mu am xalifa génnee àdduna mu defaat xasida ne fa waa asafa bi anal imaama muhammadu xalifatuna man zikruhu dëhru muxladu bi maanaam bi sayrin li qawmin baxda milin qadin qadat xayaatu fatan qad aasa wa huwa muhammadu madal madal majdu wal ula wal ulya wa matxu muhammadin bi nafmi uqudi durri wa huwa munaddadu mada jaamiu alxayraati wal faxru kulluhu mada zuhdu wa tuqa wal ilmu wa sudadu bàyyi nee na woo nañ suñ njàqare suñu limaan ji di suñu xalifa nga xam ne turam dafay des ba pëncam yàlla ma ku ko bëgg a fay fay dañoo doon tukki ci yoon rek ñu nañu ñu génn àdduna wallaahi bam mu génnee àdduna ci la tedd génn àdduna kawe moo génn àdduna tagg yonantu bee génn àdduna mbaax a génn àdduna puukare moo génn àdduna dëddu ak ragal yàlla ak kawe ak ak cang ku ko xamoon di ko jaay denc ko xalifa ko dagale woon wallahi xam-xam ak ak dogu ak ak ragal yàlla ak sopp sayduna muhammad moo génn àdduna ki gënoon ki doon taaral maas yi di sama mbokk ma di sama wéeruwaay di xalifaab suñu baay di nekk kuñ sangal ki ci lépp nga xam ne ñun ñu ngi koy jooy waaye asamaan ak suuf lépp a ngi koy jooy sam-sam ak baytul xaraam ña ngi koy jooy jirim yi ak maanaam ñu ñàkk jëkkër ñi ñu ngi koy jooy ngir ak tabeem ga njox ñoom kat nekkoon nañ ci dund gu naat gu yaatu ba fi xalifa nekkee ñu ngi koy jooy de waaye jàkka yi ñu ngi koy jooy ñu ngi koy jooy taalibe yépp ñu ngi koy jooy ngir ak mbaaxam ga am xurum ba ma ngi koy jooy yal na ko yàlla fayal nit ñi mu dëkk aljana ngir ak mbaaxam gu tedd gi tabarkeel doomam yu tedd yi loolu la ca continuer di ko wax na mada jaamiul xayraati wal faxru kulluhu mada zuhdu wa tuqaa wal ulaa wa sudadu mada al ilmu wal asmu alqawiyu wa xasiyatun wa xubbu rasulillahi maata muhammadu mada bahjatul aqraani sinwi wa malja'i xalifatu abdillahi wa huwa musawadu su ko defee bakkathu biqaaul ardi wal kutbu wa sama wa samsamu wal baytul xaraamul muxalladu bakkathul yataama wal araamilu baadama baka taalibul irfaani id maata murshidu noonu la ko continuer ba mu jeex keroog ba kalifa xalifa liggéeyalee téere bale muy ah, ah, miraatu safa ba tey moom ma ko cay bàkk naan asali taxa asali taxa bi safa i wasfil mustafa tujlihi an aynayka miraata safa lama tabadda xusnu miraati safa nil nag tifa an siwa daka safa mu ne dangalal ak réer danga lal ak tilim tilim ci melow yonantu bii ki la koy feeñalal mooy maam xalifa ci téere bu ngi tuddee seetu bu sell bi di mir atu safa ba feeñee daal moom mir atu safa ci lañu xam lu doy sëkk ci luñ bëgg xamante ci siiral téere bi wax na ko mu ne mooy taalifu sanga bii ci yonantu bi mooy kuy xencu ki nga xam ne ku koy xencu di ko jéem a dab tamit doo ko dab waaye waaye ma ne xéemal ak nga ci boole mbooleem tedd nga yi boole na mbooleem melow yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama andil nañu aw saafam yi andil nañu usoolam yi andil nañu fusoolam yi waaye waaye waaye xéemal ko cofeel gim ko gim ko waxee gu xéemu gi andil ñu ay xam-xam yu bees yoo xamee ne dañoo mel ni jongama yoo xam ne kenn mos a sëy ñoom ki ko indi mooy maam xalifa moo xam ne ku ko bàyyi yaay perte ndax moom yonantu bi jàpp na ko masta dañ di wettalikoo yonantu bi di ànd ak moom fu mu toog yonantu fa toog moo tax mu ne fa taanaka wa taanasa wa tasaaxaba amada duhóori laqad kafa wa laqad kafa huwa imaamu watha ala saxbaani jar razayli zaaka muhammadun man xat man maanaam man xat wafaa mu ne kooku mooy suñu limaan ji mooy koo xam ne saxbaanu waa ilmu fasaa mii xalifa diri na ko mbé maanaam mbécc mbiccam fàtte fu ñu ko tuddee tudd saxbaan gaa yi fàtte fàtte saxbaanul waa il kon loolu beneen xasida la moo ko def ci moom xasida bi nag moom dafa am géntu gu ko yàlla wan moom seexal lislaam ci maam kalifa mu xëy rek def ca xasida xasida boo xam ne bàyyiwut dara ma ko njëkkee ay xasal naan tuf di fulaanatun law amsat alal ihani kawaayibul xirni amri fanninu ni noonu la koy waxee foofa lay dem di tagg maam xalifa ca xasida ba fa la koy tagg dégg nga ko moom ak moom moom ak moom mu ne waat naa ne ki jël première ci nit ñi mooy Seydouna Muhammad ki jël deuxième mooy Seexu Tijaan ki jël troisième mooy maam Khalifa Niass kon loola fa la tagg mana yam yem Seex al rakkam ji moo ko wax ci moom boo boole woon tagg yëpp xëpp na téeméeri abyaat yëpp mu sotti ko ci ay leer ci jëmmi leer gi di maam Khalifa Niass ba ca tegu rakkam ju baax ja Mohamed Seynabu ma ngi koy tagg. ne jamono dafa lëndëmoon ñëkk kañ la jamono leer di ree ba boo gisee gis leer mooy maam Khalifa leeral jamono ci xam-xam la ko leeralee mooy ki dàq woy ci jamono ji. li ko jiitoog li ko mujj moom daal gannaaw bi mu taggee yonentu bi tagg Seexu Tijaan ku bëgg a xam jàmm taggal xalifa ndax liñ bëggoon a xam ci xali yonentu bi yëpp wax na ko liñ bëggoon a xam ci Seexu Tijaan lépp wax nañu ko lu ca waay waxati waxit la kuy wax waxal ci xalifa loolu la Muhammad Seyna bu wax qad laaha bisru samanin ba'da ma qataba waftara hatta arrauna ma ajaba idil adibu baliqul waqti shaa'iruhu washa bi ahsana mimma qad washa al udaba bi mathi qutbin ajibin dafirin abadan al barsaqil qadmi xummi jaalil xummi wal xujaba ku mën a way la mu ne ko madaxtahoo wa kafa ahsantahoo wa fa jasaaka rabbuka shakaba duuna ma nasaba mu teg ca ne la muy way yëpp ma ngay ma ngay ma ngay ma boppam ne wallaay su ma yàlla mayoon ma mën a woy danaa tagg maam xalifa ba ngeen foo ne lan lan laa ci moom moo tax mu ne layta layta nii uxsinu naf man raiqan la kuntu unsiju tafsilan waaye fa waa taaba yàlla nañu yàlla fayal alaaji Mouhamed Seynabu wax ju rëy jóge la wax ci magam ju tedd ji maam Khalifa Niass noon ngay demee timit Cerno si ca Ndar keroog ba maam Khalifa génne àdduna la ne ki ngeen di jooy lislaam a ko njëkk jooy koo xam ne depuis mu nekk ndaw mosta dañ di tabax tedd ngay ko ci lu feeñ ak ci lu nëbbu koo xamee ne ni tabax na ñeexal doomi jamonoom ak tedd nga goo xam ne du fi jógati mukk lay bàyyi na fi ay secret mbóot yoo xam ne buñ ko noon ci ay montagne xam-xamam montagne ya raase wallahi boo ko dikkalee dikkal nga sëriñ bu mat sëriñ bu ragal yàlla bu ñaw koo xam ne ku ko xas xam doy na bépp sëriñ ku ñàkk kalifa ñàkk nga koo mënta xamante ku xam kalifa koo manta ñàkk mën koo muñ moo tax mu ne maatal imaamu wa kullu naasi fi hasanin fal tabkihi muqulatul islaami wal watani maa zaala mus huwa fi fajri shababi fatan yabnil makaarima fi sirin wa fi alani xatta banaa li banii dunyaahu makrumatan laa tanqadi binqidaai dëhri wa zamani lahu awaarifu asraarin law ijtamaat fi qunnati tawdi qarrat tawdu daa qunani in jitahu jita shayqan aaliman fatinan yugniika an kulli shayqin aalimin fatini moom Cerno Yaan Si moo ca wax loolu boo ko calculer ab ya xëpp na juróom fukki way lépp mu mu mu sotti ko leer ci maam Khalifa jëlal ba tey moo ma sonn ñëw di ko siyaara si rek ba mu ñëwee ci buntu bi mu jël benn kayit bind ca lii yónnee ko maam Khalifa ne qul lil xalifati abqallahu xurmatahu bi anna shaa'iruhu fil baabi qad waqafa yabughi siyaaratahu suma doa lahu wa an yujaddida ahdan baynahum salafa xam nga ne lii koo ko wax dana la na wax entraîné mu ne waxal xalifa ne ko ah yàlla na yàlla dolli xormaam saaxiram bii di way katam bi de di Cerno Yaan si mi ngi ci buntu bi de fa ñëw na ngir siyaara si ko di sàkku ci moom ñaan di feddali kóllëre gañ fasoon ko wax na ko annaasu taxsudu nii fiikum li mansilatin wa kullu si nicmatin fi naasi maxsuudu arab na dagg na nga ne annaasu taxsudu nii daggante mi nga ne annaasu yaxsudu nii su ko defee tamit loolu la ko way noonu tamit balaaji mu ndaw noonu la ko continuer di tagg maam xalifa balaaji mu ndaw nee na yow miy dox kat bu la neexee demal ca penku demal ba sow foo mën a dem ci dëggante ku dëkk teeru ak ku dëkk ku dëkk ku dëkk xàll mënoo gis ku mel ni maam xalifa mukk mun ta xam mu ne moom na turam wa mel rek xalifa la bi kaamiliha su ko defee tamit nag da làqut xilaafa ga ci ak càng wala ak yàq waaye sirul xilaafa ku ma la am moo tax mu ne ko maa in fii mashriqin naw maghribi yaa saahibi min haadiri naw baadi misla alxalifati wasmaha qad xaasahu laa bi riyaasati laa wala al ifsaadi sirul xilaafati xaasahu bi kamaalihi laa bi daawi laa wala al ilhaadi warisa alxilaafata kaabiran an kaabirin min cheyqina tijaani dil imdaadi huwa mufridun fi dahrihi wa makaanihi wa xalifatul xulafaayi fi l irshaadi mu ne maam xalifa ñas daal mufrad la mu nanguwut jamoo ci jamonoom ci palaasam mooy xalifa xulafaaw yi mooy kiy soppandiku ci mbir yàlla yi mooy koo xamee na nii mbooleem ñuy ñuy xas Seexu Tijaan mbaa ñuy wax lu bon buñ ko déggee rek noppi mooy war a jaasi Seexu Tijaan di avocat défendre buy dox ci diggante moom mag moom ñëpp a ko ragal ngir xam-xamam ñëpp a ko ragal ngir maandoom nga su koy ruju ma ngi koy tàggati billaahi daruka yaa an yaasu innaka lam tadaa jawlatan fii xawmati sabqi mu ne ko hey waay waay yàlla nañu la yàlla fayal yaa bëri xam-xam yow maam Khalifa Niass man sukkeeru ju mii ñëpp xéem taalif naa lu ma juróomi téeméer téere mais yow rek laa xéem ci xam-xam. ba ñëpp dawee di kursu yaay ki jël lefam jiitu ñëpp nekk sa gannaaw maa ko seede man sukkeeru ju te du ma waxee sama bànneexu bakkan moo tax mu ne kon nag ñëpp la xameel njukkal nañ la sant gërëm la sukkeeru ju moo wax loolu maam Khalifa Niass noonu ngay demee tabaarakallaahu ah, ah, benn borom xam-xam bu mak bu nekkoon faas bind tamit maam kalifa di ko tagg tabaarakallaahu naan ahaqdu jumaanin aw tira aw aw wa adbu wa yamaanin mu mu mu rëfahun muwashahu maa ngi koy bàkk moom tamit benn xam-xam borom borom xam bu dëkk faas di Muhammad al Arabi wax ca moom wax ju rëy jooja yëpp tagg ko maam Khalifa sëriñ Aliou Sakho moom moo laaj moo tëj làmb ja dafa ne bi maam Khalifa génnee àdduna wala bam génne génnagul àdduna feeñ la jamono ne Khalifa ngi nii di mufrad mu nangu jamoo wallaahi bu demee dinaa leen andil ku mel ni moom maa ko gëñ man jamono te duma tañu. xalifa dem ñu toog di xaar gisuñ ku mel ni moom ba tey may wax ak yow ku mel ni moom xamut ma ah sëñ Aliou Sakho ne ko nag yow jamono tañu nga demal nga kafaara sa ngëñ li nga goreel jaam wala nga leexal fukki miskin wala nga xoddu leen wala nga xool ñetti fan même boo ko teqalee baax na moo tax mu ne xalifa samaan la yoxtiyanna zawil huda cheyqan xanifan kal xalifati mursida lamma tabayyana xinsuhu qulna lahu kaffir yaminaka lam lan tunajjisa maw'ida waaye koo xam ne hal misluhu min aalimin mutabaxirin sabaqa rijaala wa xaasadunahumul mada hal misluhu min aarifin mutasawifin jamaa alshariata walxaqiqata fahtada hal misluhu min saalikin min waasilin min qaa'idin aw min imaamin muqtada hal misluhu bidul unuqi bal misluhu bidul unuqi faman rama an qawsihi limathili lan yuqsida mu ne ko yow jamono tañu nga xalifa mufrad muhamud jamoo la mënoo andi ku mel ni moom ku mel ni moom ci xam-xam bu géeju jiitu góor yi yàlla yëpp ñëpp féete ko gannaaw mu féete leen kanam ku mel ni moom ci aarif boo xam ne mutasawif la boole sariha ak lépp di ko balancé tarxiisut kiiwut yéesalut ku mel ni moom ci mën a sóob gaa yi yàlla yi di leen heggale ca yàlla ku mel ni moom di jiite nit ñi ñi ko roy ci njub njub waaye waaye comme ni maam Khalifa jafe ci sëriñ yi ma sëñ Aliou Sakho ma ne mi ngi mel nenab tan nenab tan ni mu jafee ci nen yi nit dana dund ba dee du gis nenab tan te njubbi garab ya lay nen. moo tax mu ne ku jël sa xalaay rëbb koy rëbbi mu ne nenab tan sa xalaay dana dam doo ko am waaye ku jël tamit sa kurus koy seeti mu ne sëriñ bu mel ni maam xalifa ma ñaan ko wirdo wallaay sa kurus dana dagg doo daje ku mel ni moom xamul werante mu ne xalifa wurus wu wéet la wu siiw wu sàmm ak ak ak ragal yàllaam dafa mat sëkk mu kawe ñëpp waay waay mooy faa'ilul xayraati maf'ulun bihi kullul mahamidi wa fiha mubtada lépp luy mbaax xalifaay mubtada mi ko tàmbali waaye waaye xalifaay jëmmi ndub xalifaay jëmmi yërmande yàlla xalifaay jëmmi rammu xalifaay jëmmi saafara ci képp ko am jàngoro xalifaay ku ragal yàlla ka xalifa mooy ku lewet ka mooy borom ak ragal ga mooy borom ak mbañ rus ga mooy ki takkaayoo sanguhu ñëpp ci makaarimul axlaaq wër na ci maalim yi ah maanaam xulwee ak sufle yi ak sóobuwaay yëpp dagg na ko su ko defee tamit nag mu mën ca ñëpp sariya nag xalifa xalifa mooy jantam njollooram ba amma xaqiqa nag xalifa mooy weer way lëkkoog moom du teqali ko moom benn jamono. loolu la ko wax keroog ko maam xalifa mu ne a fa in kuntu abdan laabisan bi jinaahi fa arju min arrahmaan naylal falaahi xasida bu rafet la di ca sant yàlla di ko maam xalifa ne su fekkoon ne ku tilim laa jàpp naa ne ku set laay doon comme amee naa lijaasa bu tedd ci ku tedd di maam xalifa moo xam ne comme gërëm Seexu Tijaan gërëm na la demeet tafsir Moustapha nga koy bàkk laqad xaaba chamsu shariatin wa xaqiqatin badrul maarifi wa mithluhu hal yujadu ku mel ni moom mu ne waay waay waay jantab sharia sona jantab xaqiqa sona weeru xam-xam sona ku mel ni moom ndax dañ ko xamati déedéet mooy bu boo xam ne moo ràngoo mbooleem ngëneel yi mboolem melo yu mat yi su ko defee kon nañ ko roy rek te di ko topp tafsir Moustapha lii la wax ci moom Baay Laaji Ibrahima a koy bàkku ne Kaolack nga waaye làqoo ku mel ni xalifa ci xam-xam waxatuma Kaolack Sénégal laa wax waxatuma Sénégal àdduna laa wax moo tax mu ne fahal tara Kaolackun misl laa maa misluhu ri'ayaa lannaasi bil himami waa xalifati Abdillahi waldina bu ko defee tamit nag kon loolu la ko Baay Laaji Ibrahima continué tagg tabaarakallaahu mu ne jëmm la joo xam ne daal jëmm ji rek lañ ñàkk denc ko waaye dañ lañ lañ suul lépp xam rek la. Baay Laaji Amadou ma ngi koy tagg xat qaalaha Ahmadu yursi bi waalidihi cheikh suyuqi jamila siiti wa chiyami lim laa waqat kaana lil islaami xaamiyatan wa li tariqati raacin xaafidun xaafidul xurumi mu ne xasida bi alaaji Amadou ko wax di tagg sëriñi sëriñi nga xam ne dafa rafet melo ak jikko lu tax mooy ki doon xaar lislaam mooy ki doon sàmm xurumu euh, lislaam ak tariqa Cheikh na Tidiane mu ne juróom-ñetti fukki at la sama baay dund comme ni ko Cheikhu tijaan dundee woon muy jàng aaya yàlla di ko sikkar ci njël yi di teel a yeewu ronkañ yooyu sotteeku ngir bëgg yàlla ak bëgg Seyduna Muhammad moom de xamul lal nooyaay ba si tuut si suuf rek la daan nekk di ngombalante ci xalimbaam ci lii ci la jeexal dundam ga noonu la ko Mawlaaya Xaaji Amadou toppee di tagg baayam ju tedd ji maam Khalifa Niass ci xasida boo xam ne boo ko calculé dana mat presque euh, fukki ñaar fukki way naka noonu tabaarakallaahu sëñ Ahmed Guèye Ahmed Guèye ma ngay tagg maam Khalifa Niass ilaa aarifil marhumi uhdi tahiyati amidal wara fil xusni Shamsul Fadaili mooy suñ xarit boobu ci Omar Gueye bi ngeen xam borom complexe boobu mu ne ki nga xam ne nii mooy ah, sëriñi sëriñ yi di géeju ngëneel yi jantam ngëneel yi moom laay yónnee sama woy yi le haay waay waay mooy mooy mooy mooy mooy seefu waykat yi waaye mooy koo xam ne nii ba waay waay ko njëkk a way ku ko way rek way way na ko mooy mooy mbóot muñ muñ muñ kaste mooy xutbu raxaa bi mooy koo xam ne lépp lu musalantu ci sariya mbaa gi tariqa bi rek bu xëggee si xalifa leer nañ ñi demeet loolu la ko euh, bàqee topp xaji Muhammad ak ña koy tagg Mawlaaya Abil Abbas Ahmad Tijaani noonu nañ koy tagg suñu xarit ba ndeysaan Ahmed Boucar Ñang moom tamit ma ngi koy tagg di tagg maam xalifa nga sax ci bu rafet boobu ngeen xam mu yàgg ko jàng ndeysaan ba ko ji naa na nasuuru muallimal ajyaali man qad aasha dégg nga ko de yarfau raayatal irfaani mu ne ñëw nañ yow xalifa di la siyaara si ku siyaara si siyaare na borom xam-xam bi jàngal maas yi génération yaay ki leen jàngal yaay ki nga xam ne yaa dund di yëkkati rek raayaay xam-xam wallaahi ñëw naa di la siyaare si yow mi nga xam ne yaay njiital waykat yi way way yaay amiru yaay amiru shi'ri waaye yaay amiru shu'ara yi maa ko wax ñuul ñëpp yaa leen dàq way ñu ñu weex ñëpp yaa leen dàq way ñëpp a nekk sa gannaaw nga nekk ci kanam ñëpp ñëw nañ di jaayanteeg way ku ñu jaayante maanaam kilifaak way mooy koo xam ne moo laq gata gataxab jiitu bi ci lef mooma noona ñëw nañ ngir ak cofeel tabaarakallaahu si Ahmed Bukaar Ñang moom tamit kenn du moom wax ju rëy jóge la jël di bàkk maam kalifa ne ku mel ni maam kalifa amut kuñ la ko tëkkaleeg jaay nañ la tabaarakallaahu wax yooya xasida ba bu bëri la boo ko calculer dana jege juróom fukki way lépp si Ahmed Bukaar def ko ci maam Khalifa mu tedd mi noonu lañ taxawee di ko ne bukaa'i ala nibraasi wal qalbu xaa'irun wa suxbu dumuuci min jufooniya maatiru bukaa'un shadiidun fi xuduuri wa gaybati bi qalbi wa acdaa'i fa xaaliya zaahiru laqad haajat laqad haajat il amwaaju hammi wa safrati wa laysa lima bi min faqidiya saatiru yusaajiluni l atyaaru wal jawu muxlimun fa bittu uraaqibuhu wa qalbi mu xaamaru kon ñoo doon jéem loolu ne sama jooy yi daal duma ko jooyal kenn xanaa làmpab diine bi di maam Khalifa sama rongañ yaa ngi koy jooy sama xol bi gëlëm na sama ronkañ yaa ngi mel ni aw niir wuy sottee ko bàyyi ko sama mbati bëri jooy yu tar ci sama teew ki sama faddu may jooy sama xol di jooyee sama mbati bët man daal ku mujj gëlëm laa duusi njàqare yi maanaam eh, jéqi na sama sama sama xajjat yi li nekk ci man daal ngir ki ma ñàkk kenn mënta na booti man daal picc yi ngi mujj di gaaxlanteeg man fekk jaww jaa ngi lëndëm ma rek di di ko fuglu su ko defee sama xol bi nekk di luñ ñu jaxase su ko defee kon kooku mooy maam kalifa sama jooy yi nag nit ñëpp a ci jooy ñëpp topp ko xasida la boobu ñoo ko ko defal soo ko jëlee ca basamaat da ko ca fekk dana mat lu mat fanweeri bayti jëm kaw demeet noonu nga koy toppee mbooleem gaay yàlla yi woy nañ maam kalifa di ko tagg di ko bàkk muy góor ak yàlla gu todd googu nga xam ne ku ko sopp yàlla soppila la jëlee la ci texe xadi yóbbu la ci texe jëlee la ci xat yóbbu la ci yomb jëlee la ci jafe-jafe euh, jëlee la ci tag yóbbu la ci tàggartiku tabaarakallaa jëlee la ci mbon yóbbu la ci mbaax ku sopp maam xalifa yàlla defal la moo taxoon gannaaw biñ ko bindee téere bi tuddee ko basamaat ah ñu ne nañ ci jaar nag ndax ñëpp mënuñoo lire arab di ko jël nag par maanaa yi di ko tënk di ko gën a euh, ba mën a gën a jege nit ñi ñu gën ñi door ko ñu gën koo mën a jariñoo ndax xam naa ne xalifa ku ko ko xam da nga ko bëgg te ku ko sopp soppantuxuloo ko da nga ko roy te ku ko roy da nga dem aljana ndax ku ko roy rek da nga baax ken mënu ki dara. tax kon nag loolu lañ ci jublu woon xamal nit ñi kan mooy maam xalifa Ñas ndax cofee li gën a dollee ko ci moom ñu gën koo xam ñëpp boore am texe jëlee ci jël bàyyee ko ci mbon jógee ko tamit ci texe adi yàlla na yàlla defal leen ko defal ñu ko luñ ci yàq ngir ak njuumte ngir ñàkk ak ñàkk xam-xam yàlla nañu ko yàlla jégal ta xamal ñu ko waaye daal in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu uni wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu